arbitre soufflé na hey Ardo Ardo xees moom ngeen jàkkaar lool ay Ardo Ardo wala boog caatu foora xees man lu ma dal caatu foora yaa xees pej Ardo ñuul boo xoolee ñoo tollab taxawaay Ardo diggante Guédiawaye ak Parcelles côté yooyu la jóge caatu foora jóge jàmm ca Siteu di waa ci xale yi Siteu gën a wilee Tarkinda da jàmm gën arbitang lan leen bëre leen ñii faaw ñu laale lool kay maa la ko wax dañuy laale ñii dañuy laale arbit ñii foo jaar xeex ah yaakaar naa ko de gomis gomis bii combat xeex mënu cee ñàkk booy dëkki lancé leen caat noonu nga dóore mbaa baax na noonu nga sànnee sa droite ba sa tànk yëngutu mbaa loolu wóor na caat caat ak ardo takkaay yamiti na ca ñoom seeni ngemb diis na cëy làmb bu leen ko jaawale ñaari xale yaa ngoog de arbitre leen naan li ngeen bëre jël na ko jëli ko eh loolu dalul de caat daa sànni droit dem jëli ardo génne ko sànni koy perkit waaye dalul caat la nga jëli ñorul de te caatu foora xayli wóorul caatu foora lu ñor lañuy ñuy lekk de xayli du wóor xayli wóorul caatu foora daa wara a ñor xoomu caatu foora gomis booy dóor na wóor booy songu wóor lépp war a wóor caat ardo ardo gauche caat droite ardo ñuul caat xees waa loolu moom a waykat ba wayoon na ko ñuula la gënal wala xeesa la gënal gàtt mbaa njool yàllaay binde nu ko neex ñii dañoo ñuul ñii xees ñii gàtt ñii njool ñii di làkk wolof ñii pulaar ñii séeréer ñii français ña ca des anglais ñen ña italien ñii espagnol cey yàlla kenn du moom billaay wallaay kenn du moom dégguma la dañoo war a bëre waaw bëre conseil xam naa loolu bokk na ci li yéexal combat bi xamul mbëri xam na Garga 2 waaye xamul Mama Lamine. Momo sañ na lool wallaay dëgg Momo di filmal lu ni Lutte TV. xam na Garga 2. ay Momo. bëre leen bu leen bëree ay conseil bëre leen. Momo. xamul Garga Mbossé caméraman Garga Mbossé est kon xam na Balla waa Modou Lo ah xam na Modou kon moom Garga Mbossé la xamul aw ama neex eh jël na ko ñu ngay door eh caat door nañ la de eh foo jëm Ardo Ardo daw na Ardo daw na Ardo daw na Ardo daw na loxo ba summeku wala lan Ardo daw na de Ardo daw na de mbaadu wëqet loxo ba summeku loxo baa summeku ñaar ñoom fit lañu waaye Ardo it daa jël ku nag loxo ba summeku na waaye caatu fora da koo laal ak dolle ko ca loxo ba summeku xamatul nu muy def mu ne naa daw di génn defaru ji waaw olof ne na xar wuti doole xam naa ardo loolu la xam jàppante nañu mu ngi koy fàq di ko dóor caatu foran koy dóor ipel kit dóorante ba dóorante caat caat gëdd na ko ardo foo dem jow waa ardo mi lu ko dal waa ardo mi lu ko dal ee eh. waa mais xew waa ardo mi yéen waa Ardo mi luy problème am waa Ardo lu ko dal ah man waaru naa waa Ardo looy daw nag waa mais Ardo lu muy daw waa mais bii combat moom waaram Gomis waaye ndaw combat Ardo tey loo nekkee ndaw bi Ardo am nga deux avertissement de Ardo mbaa xaalis du jeex Ardo sa loxo bu dee day sumeku moom nga nar koo jàppoo nii door na droite moom Ardo caat fayu Ardo à droite Thiat à gauche Ardo tey nga defar say loxo buñ la jékkoo ci géew bi ba jàpp la mbaa dooti nga mën a daw bëre leen waaye seen combat yàgg na trop caatak ak ardo seen combat bi yàgg na de caatak ak ardo caat yaak ardo gëddante noo nga ca ñaari mbër yaa nga ca xeex taw na jëliwaat ko mu ngi koy dóor eh mu ngi koy dóor dóor mu taanu wala luy xew dóor mu taanu mbaa xew eh ñaari xale yi waay bii combat waay waay ji lamba nara mitti waay mitti na ba pare sax lu xew lu xew ardo tee nga bëre ardo am nga ñetti avertissement ardo tee nga bëre ardo di nga ñàkk bi combat de ardo luy problème Ada dafa mel loxo bay simeeku. ok mais loxo buy simeeku mais loolu du ko faj. waaw ah, loxo bi simeeku est-ce que mën nañu ko faj loxo bi simeeku dañ koy. ñu nga ànd di waxtaan man de man de lu ngeen di waxante ñu ngay waxtaan di abu arbi da nga leen leen kaay leen te ba waxtaan wi arbitre waat na maa ngi lay bëggee jàppante nañu ardo ngay dóor ardo caatu foora xeex ñu ngay xeex une deux faw ngeen xeex waaye bii combat yàgg tamit waay ñoom ñaar dey Ardo li mu xamul mooy am na ñetti avertissement su combat bi jeexee da ngay ñàkk Ardo avertir nañ la ay yooni yoon boo fexewul bëree daan bu combat bi jeexee yaay ñàkk ba pare boo sàgg nañu daggaale sab xaalis Ardo xaw ma ki la yore toog sa baa xam na lu wala déet ndax su ma juumulee Père sa Mbargane dem na ci caatu fora ba déyoo ak moom te moom magum làmb la yooyu yëpp da koy xamal problème ne ko léegi am na ñetti avertissement bëre bi gën koo teg ci yoon ndax su jeexee yaay am ndam te loolu daa bokk ci sa bi waaw te boo xoolee caat mooy sëkkatal ardo ardo mi daa mel ni na ta yóbbu caatu fora ci ardo gis nga day dugg di génn xoolal xoolal xoolal lii caat mbaa doo yàkkamti ba yàqal sa bopp jàppante nañu de jàppante nañu de xanaa combat bu war naa sutee foofu waaye boobu jàppante yi de dañoo ku ne da jàpp sa loxo droite ci ngemb ñu mbaar ñaari mbëri jàppante nañu ku ne mbaar waaye loo ci mën a dégg avantage baa ngi féete ci côté caatu fora ndax ardo dafa gàddu ñetti avertissement kon moom bëre daan caxabal na ko lool daa sori am na lu mu bëgg de moom ardo ci bëre ardo it xale bu mën a bëre la waaye xaw ma xam na ne moom gis nga la mu bëgg a def loolu dafa yomb de wala sori na yok te koy daan a ah way ardo daan na ko oh ardo waay xool ardo xool ardo ya muy def xool ko supporter ya e waay xool ardo ya muy def xool entraîneur ardo bi xool entraîneur ardo bi xool entraîneur ardo bi gomis xool ardo xool ardo waa këram ardo police ya ay ardo ay ardo ay waay Ardo waay man bëgg naa mbër mu aare waay xool booy bi booy bee waane kii dafa waane e way ndaw naa leen lan la li xew kay yaa ko def Ardo lu fi xew rek yow a lu xew rek yow lu xew rek yow Ardo xoolal Ardo kot suba ñu nga ca entraînement yi doyal a guñu ay waay yéen ñaar ñi may leen ñu waaw waaw daan ba pare di def say e way ndaw man bëgg naa lii ci mbër man ardo daan na caatu fooraa ba toog ci kawam mu ngoo nga ñuy yóbbu waaye kii moom jàpp nañ ko di ko yóbbu yow loo def yow loo def ñu ngi lay bis ti bis seede fuñ la jëmale mbaa fi nga jëm dina neex ci yow dañ laa poñe ci kanam jàpp la ci ginnaaw